furee mu toll. ñun internet ah Dakar live euh, tey dama ñëwoon fii si Nord Foire. ñëw seet si beneen ndaanaan ndaanaan ba xam ne jarut a présenté ko dégg ku gis ndaanaan bi te xam ne mooy kan ah damay dugg ndank présenté leen ndaanaan bi ngeen gis ko ngeen xam tey ba ndaanaan laa dalal sama plateau émission enjoy moo ñëw jël si te mooy kan muy Rambo Ndiaye Rambo de boo leen ko déggee mooy xam ne xale boo xam ne day yàgg na yi yàgg na bégal xale yi bégal ndaw kon damay ñëw ndànk a ah, jàkkaarloo ak moom ñu xam kan mooy Rambo Ndiaye. sama ndaanaan mu ngi nii nag tey nag kii laa dalal sama émission enjoy boo leen déggee Rambo Ndiaye ki kenn kenn gënu leen ko xam ndax yàgg na di bégal xale yi bégal mag ñi tey moom laa dalal sama émission enjoy kon Rambo nuy naa la. ah mais si sa Adama maa ngi lay siyaare. Mhm. ah yéen mu fekk nii may def benn genre réflexion. mbaalu mënuma woy mais dama bëgg a woy sama <laughs> tey da nga woon da nga ñu woon a woy wala da nga mënoo woy te da nga ñu ko wax yaa def noir blanc bi. <laughs> rombo doo ma daaj ji. Ah, waa kañ comme lu mu lan ko defalee léegi si suuf gis ngeen léegi léegi Maxram Boy Ndiaye léegi léegi la woon si suuf ñoo ngi ni si kaw studio bi ci kaw toog waxtaan ak moom ah comme nee naa la émission enjoy bu leen ko déggee dañuy ka fooree ah kon tey damaa jàkkaar ak Rambo Papa Ndiaye Rambo nuyu naa la. waaw si sa Adama maa ngi lay siyaare ah. xam nga ko siyaare Adama nag war na siyaare Awa. la. dëgg la di siyaare waa Dakar live mhm. ci émission bii nga xam ni mooy enjoy mhm. xam nga nag town bi toll na foo xamante il faut ñëpp enjoy dëgg la mhm. di gërëm sa caméraman yi nga àndal del kontaane ndax nag lii oyof ta parce que a ma fekk studio bu la dëgg la waaw studio Papis Ndiaye bi nga xamante ni ku ne xam na ni lu saf ci waali rek moom la. loolu dafa leer nekk ni fi nga loolu dafa mais Papa Ndiaye Rambo bu ñu solo bu ñu bëggee xam kan mooy Papa Ndiaye Rambo. internet Dakar laay bëgg nañ xam kii Pape Ndiaye Rambo nag parce que war war nga war nga président xam yaay kan wax wax yaay kan. waaw ok Adama man nag. xam nga mm. Pape Ndiaye Rambo moom. Mm. Euh, benn sénégalais la bu juddoo Pikine yaroo Pikine mm-hmm. màggee Lamsaar. Mm-hmm. di yëngu ci li muy yëngu avant loolu nag bëri na xaw xaw nañu bëri métier yi jaar. ñun jaar nañ ci menuisier jaar nañ ci maçon. Mhm. jaar nañ ci même étanchéité bâtiment ba léegi nag ñu ngi ci étanchéité bâtiment. Mhm. Hmm? def nañ vulgarisateur doon nañ liggéeyal Ndiaga Ndiaye. Mhm. Ah? def nañ def nañ pas métier yu bari daal métier yu bari def nañ ko ba yàlla dogal nag. ñu teeree ci simb si ñuy def. tey ñu xamul woon Papa Ndiaye Rambo da ngeen xam kan mooy Papa Ndiaye Rambo Rambo Ndiaye bu ñu si loolu dañu bëggoon xam Rambo lan moo ko tax mu dugg simb. waaw simb nag. Mm, bu ma fekkee dama wax dëgg sama dafa am sama benn mag. Mm-hmm. bu ñuy wax Pape Ndaw mm-hmm. léegi sax taalibe sëñ Abdou la dafa laxasaayu moom moo ma dugal simb. Mm-hmm. c'est parce que bu ma wàcc. bu ma ñëwee seetaan du muy simb jagsaaw. bu ma ñëwee fekk ko muy simb jagsaaw moom dafa xawoon a tuuti. léegi nag dañ ko doon dafa mënoon simb lool mais dañ ko lool doole nag quoi. léegi nag benn jour. ma xool gis ñu néewal ko doole rek. Mm. ma daal jël micro bi daal ne suba nag dinaa solu bu amul billet bu mu fi taxaw. <laughs> noonu laa duggee ci simb ci ginnaaw gi nag après léegi ci suba sama ñëw mu sumb ci booyam yi kenn jox ma déguisement. Mm-hmm. ma solu yàlla def noonu après ma ànd ak. sama grand muy Saliou di ko nuyu nekk ci yoonu Italie wax Saliou Ndiaye mooy sama ak sama sama grand bu ñuy wax Am Diop boo xoolee ci saa yu lim la jamono ji Am Diop moo ci nekk Saliou Ndiaye ak Gambien Am Diop nag mooy génn ci ñaar comprendre léegi nag nan lañ duggee ci suñu laaj kon boo dafa am sa nga doon jàppale boobu dafa néewoon doole ba tey Rambo Ndiaye yegg fu Rambo Rambo Rambo Rambo mm-hmm. Mm-hmm. mais Rambo ba nga commencé simb ba tey ñi yaa ngi sa gis nga sa bopp waaw waaw pour te mm-hmm. gis nañ ko ci gisuñ ko ci waaw parce que nit parce que simb léegi dafa bari ay pacc yoo xamante ni dañ koo xaw a yàq xam nga looloo waral ñu bari simb léegi fi ñu ko waroon teg teguñu ko fa. Mhm. parce que boo xoolee. Mhm. woykat yi ngay gis nii Sénégal genn wàll gépp ci simb lañ jóge. Mhm. tëggkatu bongo yi ñoom ñëpp ci simb lañ jóge. tëggkatu sabar yi tamit même chose ñoom ñëpp. même mbëru làmb yi. waaw boo xoolee sax même Amady Badiane mi nga ne day feccal Wally Seck. waaw Amady Badiane gaynde gu jigéen la woon. ah si. taxal gaynde gu jigéen. ndeysaan Amady mm. ak Arma. waaw waaw yàlla xam na ko galas mhm. mi nga xamante ni way na Wally Seck bëgg dem benn morceau bu doy waar mhm. macha allah mhm. moom it man la doon wayal simb ak ñoom Moussa Diouf na daal dafa yaatu yaatu na waaw mais gis nañ instant bu njëkk simb amoon na doole mais guddi ñu toll simbu gisu gis euh, simbkat yi gisutuñu seen bopp boog simb na yow mi nga xam ne daan nga simb bu njëkk gis sa bopp mais guddi ñu toll est-ce que ngi ciy gis sa bopp ba tey waaw waaw bu fekkee dañoo wax suñu diggante ak yàlla nag ah. Mm-hmm. jamonoy Abdoulaye Wade. Mm-hmm. président Abdoulaye Wade. Mm-hmm. jamono jooju lañ gënoon gis suñu bopp di simb ko. ayu président Macky Sall bi. waaw parce que ayu président Macky Sall bi ci ñun simbkat yi. lépp a corona. waaw. sérieusement. kon jamono laay wàdd moo gën a neex simb mais da nga bëgg jamono Macky instant yi simb bi dafa wàdd wàcc. simb bi neexul waaw. neexagul ah. neexagul neexagul non mais Rambo lan lay xaar pour waaw waaw waaw mais xam nga xam nga nag nit ki. Mhm. doo dugg ci dara. Mhm. te man yàlla dafa dogal ba may dugg ci simbu. Mhm. neexul woon ñu bari ci sama famille. mais yàlla dogal ma commencé ci tukki. ah tukki nga waaye lal lal bu rafet bi sama yaay njëkk a tëdd. ci simbu laa ko amee. Hmm? armoire bu rafet bi sama yaay njëkk def fi ay yéreem. ci simb laa ko laa ko laa ko laa ko amee mhm. Mhm. maanaam maanaam bu ma changé suñu garde robe kër mhm. ci simb la léegi nag comme que dugg nañ ci bopp yi dañuy doxal rek après foo ko yàlla yemale ñu xam ne yàlla fa la ko yemale mais instant bi moom dëgg yàlla ba instant bi ñu ñëw sa diggante ak Wally euh, parce que am na sa photo yu ma gis Facebook dafa mel ni yow Wally yàgg ngeen yow sa sa diggante ak Wally Seck lan moo ko indi waaye xam nga su ma diggante Wally nag. Mhm. Euh, mu ngi mel ni diggante rakk ak mag. Mhm. Wally Wally sama rakk la. Mhm. et sama xarit la. Hmm? Wally man ak moom li nga xamante depuis 2007. 2007 hmm? ak léegi mu ngi bëgg a yàgg mais loolu Italie la woon ah. Italie la woon fekk Wally xamoon na ma. Hmm? parce que man wax dëgg yàlla képp ku nekkoon Sénégal fii du ñàkk xam nga. même boo ma xamul woon dégg nga sama tur. Mhm. xam nga. Mhm. noonu lañ def nag ba ni nga yàlla ni yàlla dogalee ma ñibbi si Sénégal. Mhm. mu woo ma. ne ma yaay sama grand ñëw jàppale ma ci bi. xam nga. ma commencé ko jàppale nag ba tey nekk biir Ramadan tey jii. waay waay waay waaw Ramadan Faramareen. univers extra ah, parce que parce que waali sarak la. yàgg ngi yéen ñaar. Mhm. Euh, parce que dañ lay gis si kew seen waali lépp si kalam ngay taxaw Rambo am na ñoo xam sax dañu foogoon videur waali nga. Mhm. mais ñu xamut boog nga leeral leen ne waali seek yéen ñaar da ngeen yàgg trop. waaw xam nga euh, nit. Mhm. bu fekkee yàlla da ngeen yàlla dafa dogal ngeen di ànd. moom muy ci li muy def. bu ngeen àndee foo xamante ni mbooloo mi moom la ñuy xaar. Mhm. te yàlla dafa dogal jamono jooju man man ak moom kese ñooy ànd. xanaa du ma bàyyi nit ñi di buuxante di dal di ko. Ah. Mm, mm, mm. waali lu waay jàpp sama diggante moom ne moomam laa rek. Mhm. moom laa. Mhm. kum neex na vidéoram la. kum neex na magam la. kum neex na suqam la. kum neex kum neex kum neex. mais waali en personne xam na lu ma doon ci moom. man en personne xam naa li ma doon ci waali. en tout cas wax ji daal li nga xamante ni mën naa ko tënk. Mhm. Wally Seck sama rakk la. yaay jaaga. Mhm. mooy sama yaay mooy yaayam. Mhm. Papa Thione. mooy yaayam mooy sama yaay. Momy Dani. mooy sama rakk. mooy magam. sama yaay soxna Kandji mooy yaayam. mais ay jamono déggoon nañ fi ñu ne Rambo Ndiaye ak Wally dañu jote. Mm, te lu leen bool ah dañ ko force si weewu bëy boog mhm. luñ koy waxee ñu ne Rambo ak Waly nekkatuñu mhm. dañu duuloo mhm. daan moo leen boole ngénte Rambo la woon Waly waroon ko joxu xawma xaru tabax si si lu ñu dégg Waly joxu la ko waaw waaw loolu nag loolu nag xam nga yooyu moom ay fausse news la xaw ma Waly bu demee bay jox ñi nga xamante ni dara ci moom ay xar kon Rambo jarul wax. Mm-hmm. Hmm? Mm-hmm. Wally comme li ma la ko waxee. Mm-hmm. Wally man ak moom. Wally sama rakk la. Wally man tuddee naa ko doom. Hmm? tuddee naa ko doom. du ay affaire du ay affaire yu ñëw ñàkk ñëw Wally Wally man ak moom mënuñu mënuñu mënuñu jotee xam nga du ñàkk na. du ñàkk na ay nit lañ. mu ngi mel ni ki nga xamante ni yaay ak papa. Mm-hmm. dañuy am problème. Mm-hmm. papa ak doom noonu extra extra. Mm-hmm. sama diggante ak Wally loolu mënu ci ñàkk mais Wally comme ni ma la ko waxee. sama rakk la encore une fois. Wally sama rakk la. jógee enjoy lañ wax. Mm-hmm. xam nga enjoy instant yi dañ nekk si corona nag. Mm-hmm. xam nga instant stress dafa bëri. Mm-hmm. gaa yaa ngi toog seen kër. ah kenn reetaanatul. kenn kafatul kenn defatul dara. enjoy nag euh, muy émission boo xam ne dañuy bégal nañuy kafree. fooree. léegi ma lay euh, question boo xam ne oui ou non. Rambo Ndiaye. danga tontu si Wally Seck dama lay posé question si Wally Seck nga tontu ma baa nga tontu ma si Pape jouf si ñaari yoon benn ban ngay jël Wally ou Pape Diouf ban nga siy jël nga tontu ma. koo ah. Mhm. sa relation Pape Diouf est-ce nga ñu ko wax ndax am ngeen relation yoo Pape Diouf. waaye Pape Diouf Pape Diouf Pape Diouf nag par relation bu bu proche. Mhm, ah. mhm. mais Pape Diouf daan naa simb buntu këram. bu mësaan a wàcc liggéey. daan ñëw sama simb di fa way. ma ma Mor Mané Mor Mané moom moo yor micro bi ci ginnaaw moo koy awu. mooy kiy wax. Mor Mané na ma gaynde gu jigéen. kon Pape Diouf sama grand la. waay mhm. non. Hmm. non. kon baax na ba tey dañuy dem si président yi nga fi tudd Ablaye Wade. Mhm. léegi diggante Sonko ak Macky Sall nan nga gisee loolu. ay politiciens lan ay politiciens lan man man moom bu ma waxee sama diggante ak alxuraan. Mhm. Macky Sall moom. damaa bett man. waaw bu fekkee bu fekkee parce que tamit gis nga nit kii. booy wax da ngay wax te yàlla rek tax mhm. Macky moom waaw non bari na nag ah pàcc yu bari parce que mhm. euh, bari na daal parce que instant bi ñu ngi ci moment ci kanam tuuti ñu tëj dëkk bi mhm. xam nga te man yàlla dafa dogal man artiste la kon man mënatumaa joxe dépasse sama kër te dama am soxna am ay doom macha allah yor yaay yor papa te ñëpp ginnaaw yàlla ci man lañ yaakaar kon instant bi mënatuma leen satisfaire sama yaay day jaay cere cere sama yaay cerem bu doon pare mu ngi pare vingt heures vingt heures vingt heures vingt vingt vingt vingt vingt mu dem jaayi mhm. léegi nag tëj nañ dëkk bi mhm. léegi man munu ma jox sama yaay dépasse mhm. sama yaay xaw ma fu muy kóol-kóoloo dépasse trop lool mm. lool wax dëgg yàlla metti na lool nag wax dëgg yàlla mais Rambo sa diggante simi lan la six mille problème. kooku ñoo bokk gox. Mhm. Mhm. Euh, kooku sama rakk la. sama rakk la wax mhm. dëgg hmm? yàlla. sama rakk six sama rakk la. pas paa diggante bu tax bu normal buy fréquenté wala extra extra. mais sama rakk la ñoo bokk fi ñu dëkk. parce que moom jàmm gën la dëkk. man maa ngi dëkk Thiaré Azur. waaw waaw six noonu la demee sama diggante moom sama rakk bu baax la wax dëgg dëgg yàlla. xam ma. xam man laay jëriñ. xam fi ma teg. Mhm. moom it ma xam mu xam fi ma ko teg. mais Rambo euh, on parle avec français. <laughs> on parle avec français. vous parlez français. oui. ah comme comme tu veux. comme tu veux. comme tu veux. oui mm. ouais, comme tu veux allez. on commence <laughs> tey nga jommi de tey nga xam ni lépp dëgg la. Rambo dans la vie. Je n'ai pas fait la bas Je fais une tabriette. Quand pas parler français trop, tu n'es pas lire trop. Mais je débrouille. Mhm. En tout cas, français, je ne sais pas si je suis là. Sénégalais, Sénégalais. Sénégalais, mhm. Je m'appelle Ndiaye Rambo. Mhm. Je suis Sénégalais, comme tout le monde. président Macky Sall. Mhm. il faut nga aider ñu il faut nga dimbali parce que dans la vie c'est très dur c'est tellement dur comme le dirait après mu jeex français doy <laughs> non Ramadou Ndiaye sa caméraman yaa ngi dajee ah. ko na mm-hmm. Rambo yow mm-hmm. lii moo tax yow ñun dañuy yàqamti sa plateau ndax da ngay toj plateau yi waaw waaw waaw moo tax gis nga démb mm-hmm. buñ naree buñ def émission ñu toogaa ñu ne ah est duñ ko jëlaat jël suñu temps parce que Rambo moom ku koy paral émission moom foog nga toog bu baax a baax waaj ko waaw waaw keñ mais Rambo buñ jógee foofu noonu vidéo Covid yi dañ koy dugal léegi-léegi ñu commentaire après nga ñëw waaw parce que Sadio dafa tëb dugg suñu kër gis suñu waa kër séerante la naa pour mu gars yi tëddee quoi. Eh, yow gis naa sàcc bu gën a dee. Hmm. sàcc bi daal tëb dugg ci biir kër gi. Ah. zuuru tam xarit. <laughs> Ah, tëddagoo leen de dama wax na ma Ousseyn wax na ma bi maa ko bopp de. ñoo ko ñaanal exposé bi. cinq cent franc ak lan kàppoot aujourd'hui bi dee kàppoot ndax kàppoot bu yëmbax laa ilaha illallah ak lan ak yàmba te aujourd'hui kat di mu yor moo yàmba moo yàgg laa ilaha aujourd'hui fàcc na fi cafetière ba xool ise amul quarante laa <laughs> ilaha illallah aussi am na xool Ouzin soixante vingt la ilaha eh, loo gisee kaw di biñ teg léegi léegi vidéo bi waaw waaw waaw c'était cool parce que mm-hmm. xam nga mu ngi dindi stress ah parce que tamit Sénégal dafa xaw a doy waar tamit mais Rambo Tamboy sa Tamboy lan ñu mën eh, xam naa Rambo Ndiaye waaw waaw waaw xawoon na doy waaw waaw Tamboy nag mm-hmm. xam nga comme que Pikine laa juddoo. Mhm. Dominique xam nga léegi nag man syndicat. Mhm. syndicat daal wax dëgg yàlla bari woon naa fa tànk loolu dama daan dama daan sàcc mango wala madd mais foofu. Mhm. dafa demoon ba paa ak maire yi xàmme ma. bu ma sàccee madd wala mango duñ ma dóor. bu ma jàppee. dañuy jël damba mango rek. damba waaw dëpp ma. teg ko sama digg ginnaaw bi. <laughs> teg ko sama digg ginnaaw bi ba heure bu ñoom bu ñuy wàcc. ñu teg ko ñu teg ko rek bàyyi ma. Hmm? waaw yooyu daal yooyu daal ay ak ak tamit bu ma jàngale woon bu ma waree jàngi. Hmm? suul sama ardoise jamono yooyu ardoise la dem dem dem sàcc mango wala dem caara yi dugg ci ay détail daal xam nga temps booy xam nga waaw. Hmm. waaw. ko ni ah yàgg waaw ah. waaw waaw wax dëgg dëgg yàlla bu ñu fekkee nag dana wax dëgg rek. mais nag xam nga di santaat encore une fois suñu yaay suñu papa. parce waaw dimbal ñu daal xam naan bu dul woon ñooñu. Mm-hmm. heure bii nii wax dëgg dëgg yàlla kenn du ñu dëkk micro. waaw ah, loolu dafa leer bii nii xam nga kenn du ñu gis du ñu sopp. et puis di kontaan ci suñu soppee ba. Mm-hmm. waaw. di kontaan ci ak ñi nga xamante ne xam nga man. mais loolu foofu lañ koy ñëw léegi léegi. Uh-huh. damaa bëgg nga léebal ma avant émission bi ñu koy tëj. léeb da nga léeb de léegi ngay def damaa bëgg nga léebal ma. léeb nag ay naa ci ay temps mais instant ñëwaat tuuti si léeb. léegi si mbëgg si mbëgg laa gën a mën de. <laughs> da ñu wax parce que yàgg yàgg nga di simb lépp ñu léebal ñu si simb la nga yàgg def si simb kat. Ah, ah waaw gis nga. waaw waxal waaw gis nga yaa ngi nii di départ xam nga yaa ngi nii di départ kon dama xaddamtu ko rek. mais en tout cas. Mhm. Mhm. xam nga man dama doon préparer grand théâtre. Mhm. mais Covid bi moo ko yàq. ci ci ci ci ci ci ci ci ci le le le vingt et un bi xaw ma le vingt ñu ngi ci ban mois nii. ñu ngi si euh, janvier. ok. maa ngi maa ngi maa ngi doon préparé pour def grand théâtre mais xam nga def jot nañ ci def ay quelques financement yoo xam ne suñu nit ñooñu jàppale wu ñu def ko mais gis nga yàqu na. yàqu na wax dëgg yàlla comme ku mel ni euh, sama xarit euh, borom ndukumaan Mouhamed Ndaw borom ndukumaan. Mhm. Hmm, doom nday Amady Badiane. Mhm. Hmm, ak Waly Seck. nga xamante ni jàppale woon nañu lool bëggoon affaire bi ñu def ko xam nga. Mhm. ak. Euh, Euh, euh, ñeneen ak ñeneen si ak suñu suñu directeur directeur Coly. Mhm. ak directeur Coly. Mhm. ak suñu benn xarit boo xam mu ngi dëkk Thiès. Mhm. moom moom période coronavirus yëpp moo may jàppale. ndax bu loolu moom. wax dëgg-dëgg yàlla caaf xam tege tege boy maa fi lakk. nii laa leen ko indi lay woon tey seen émission enjoy te du Rambo Ndiaye kese la des na ñeneen ña xam ne damay toog ak ñoom waxtaan ak ñoom enjoy ka fooree di leen jox dig daje ba beneen yoon. understand sista Ada. Enjoy.